أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على من أرسله رحمة للعالمين وجعل دينه وشريعته خالدين هدى للناس على مر القرون mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias fu ngeen mën a nekk si biir réew mi ak si bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel nag ci bés bu màgg bi bés bi nga xam ne mooy guddi laylatu qadar nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a joxoñoon direct bés boobu nag ñu sant yàlla macha allah biñ ci dellu seewaat fekke woon nañ ko daaw ak a jafe fekke rek ndax ñu bëri macha allah xam ngeen ci ay xew-xew ci ay kilifa macha allah yoo xam ne daaw ñu ngi toogoon ay kilifa diine ay kilifa aada njaboot gi xarit yi soppe yi ndeysaan am na ñoo xam ne daaw heure bi ñu ngi toogoon ak seeni waajur yu jigéen ak yu góor di waajal guddi gi tey ndeysaan ñu ngi leen di yónnee ay lexlaas ah oustaz moor lool nag boo ko xalaatee sa xol day sori moo tax ñu sant yàlla ndax guddi gi kat fiihaa yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina lu nekk tey lañ koy séddale waaye ñooy ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla yal nañu bokk ci xaaj bi jëm déwén te buñ ci bokkee yal nañ la jaamu comme ni nga ko santaanee yàlla ñu la jaamu ci jaamu xuraafaat yàlla ñu la jaamu ci jaamu boo xam ne amul benn dalil dëppoowul ak alquran dëppoowul ak sunna nekk na ñu yàlla musal ci loolu kon nag oustaz ñu ngi nuyu kilifa diine yi di leen ndokkeel ci bés bi di nuyu nag kilifa aada yi ak suñu waajur yu góor yi ak yu jigéen yi daal di jëlaat comme ni ñu koy waxee rek yaay boo yi ñu jox ko Adja Kumba Waali comme d'habitude góor ñi moom dama koy bàyyi yow oustaz Mor suñu doom nag dafa dawati oustaz wóor na yàlla Assane ren yi mu absenté yëpp dama koy jox demande explication <laughs> xam naa ne nag lu mu def neex na yaay ni jaay doo ko lu mu def rek neex na la waaye daal ren moom dinaa ko jox demande d'explication. <laughs> bismillah nuyu mbooleem sunu kilifa diine yi ak sunu kilifa adduna yi tabaarakallahu di beral nuyoo oustaz Hassan. <laughs> ndax euh, moom mooy lépp ci émission bi tabaarakallahu Eh, ñu nuyu ko ziyaar ka fa mu nekk eh, ñu ngi koy béggee bu baax a baax di ko ñaanal mu ñaanal nu foofa tabaarakallaahu noonu it noo ngi fii di ko ñaanal. wallaay ndeysaan tabaarakallah eh, xam nga yaay. bu bu bu du bëgg doomam di ko sori. parce que léegi <laughs> parce que léegi gars yi dañuy fëkk xale yi <laughs> moo tax moo tax su ko defee ñu ngi ñu mi ngi lay béggee nag bu baax a baax. macha allah ndeysaan di di la nuyu nag yow Seyda. <laughs> Uh-huh. di la ziar bu baax di kontaan. ci dajawaat gi tabaarakallaa di nuyu borom kër ga kaaw ak njaboot yi nga xamante ni ak waa dëkk ba waa quartier bi ñëpp ñu nuyu leen ziar leen nuyu suñuy njaboot ak waa quartier bi yëpp tabaarakallaa di ñaanal kilifa diine yi yàlla na yàlla yokk seen sag amiin amiin yaa kilifa diine yi def nañ leen war wallaahi li leen war mooy ñu digle ñu tere waaye est-ce que njaboot yi ñuy diigal mm-hmm. est-ce que njaboot yi ñu tere ña nga ca wala nekkuñ ca waaw foofu la foofu la coow li nekk waaw. waaw sa kilifa bu la waxee bëggumaa dégg lu ñaaw. waaw bëgguma nga wax lu ñaaw bëgguma nga def lu ñaaw. Mm. suur ci sama mbokk. nga continuer di ko def. day mel ni amuloo noppi garmi te loolu mi ngi am ba léegi. am am mi ngi am ba léegi. Euh, bu njëkk dañ doon waykat bi doon wax ne amartukal xayru laakin ma atamartu bihi bu njëkk ki daan digle lu baax moo ci daawul nekk. ba tax yàlla di leen duut baaraam. naan leen at na naa atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum mm-hmm. léegi ñoom dañ lay digal lu baax. nekk ca yow mi ñu koy digal doo ca ne ba noppi di leen tuddoo yooyu nag baaxul waaye oustaz dem yenn saa yi responsabilité bi dafay séddoo mhm. parce que day am ñoo xam ne ñoo leen di tàyyit di leen di leen tàccu te loolu nag musiba la te te loolu baaxul ci réew. xam ma mos naa wax fii benn benn warif. waaw ma ni dama mës a dégg Serigne Cheikh Tidiane si mu ni. Mhm. su soo xëyoon gàddu yat. Mhm. xëy gàddu yat. waaw ne maa ngi dem rey yàlla. waaw nee na nit ñi xam nañu loolu mënul nekk de. mais dina am ñu lay supporter. <laughs> billaahi wax nga dëgg. Ah. wax nga dëgg. Ah. wax nga dëgg donc loolu. Mm-hmm. maanaam euh, dafay am toujours. Mm-hmm. yal na yàlla xiirtal lu mm-hmm. nuy nuy nuy xalaat lu baax di ko wax. wallaahi te aussi di yàkkal sunu moroom yi jullit yi. ndabi gor ak ndabi teraanga. wallaahi moo jaadu de. ndabi gor ak ndabi teraanga. loolu dafa baax trop nit ñi di ko xam. Euh, du nit ki bu la yebalee yekkalee ndabu teraanga rek da nga koy yebal da nga koy yekkal ndabu baadoo la déedéet. loolu baaxul loolu baaxul. te penc yi koy tas. Mhm. yooyu rek la di lay di yekkal nit ñi ci ndabi gor ñu bañ la yekkal ci ndabi gor da ngay dem ba nga ñeeññi boo ñeeññee nag leneen lay jur. yal nañ ci yàlla musal. loolu nag leçon la buñ doon buñ doon joxe. Mhm. Euh, te ñoo ci jiitu war koo jël macha allah allah euh, gis nga euh, Seyda xam-xam. xam-xam kenn rek la yàlla wax ne moom laa jàngal. ki ci des moo jàngal ñëpp. ci biir jàng la. wa allama aadama. aadama la yàlla jàngal. Mhm. ñi ci des yàlla da leen boole benn professeur bu leen jàngal. wallaay professeur bu mag boobu. <laughs> dafa mel ni mooy sama papa Diané <laughs> ka tëdd Seydou ka tëdd sa Madinatul Munawwara. macha allah <laughs> da la boole bu la jàngal mais yàlla rek adama la jàngal. Mhm. li ci des nag moo tax euh, boo jàngee ci nit ba pare da ngay am modestie. Mhm. boo jàngee da ngay am modestie. gis nga xam-xam moom la yàlla def mu mu mu rëy. Seyda dafa am benn nettali bu gàtt. ma jox la kàddu gi ñu doog a ñu ci dars bi. dañu wax ni waa ji dafa dafa dafa yàlla da koo may xam-xam. may ko cër. muy tiitaroo cër bi. ak xam-xam bi. ba jàpp ni li yàlla bind moo ci sut. muy voyager booba temps saxaar yi xewul avion xewul nit ñi ci gaal la ñuy voyager bato. mu dugg ba ci biir géej gi rek géej gi wane melokaanam. waaw yëngatu yëngatu. li xale yi wax sàmbaraax géej gi yëngatu gaal yi commencé di baaje moom mu génne ci fi mu nekkoon ci chambre ci hôtel ci chambre bi génn ñëw jàkkaarloo géej gi ni ko eh, dalal géej moo nekk ci sa kaw ci saa si géej gi na teg mu bëgg a dem benn yoos jën bu ndaw génne boppam ci kaw géej gi ne ko boroom xam-xam bi man de damaa am gàkk bëggoon ku ma gàgganti comme yow géej nga mm-hmm. maa ngi doon seet géej pour mu gàgganti ma mu ne ko mu ne ko lan mooy sal sal sal salmachit salmachit booba wàcc yéegal na boppam jën bi ni ko dama am gag rek mooy mhm. damay laaj ki yàlla nattu jëkkëram jéppi ko mhm. ki yàlla nattu jëkkëram jéppi ko ba soppi ko xeer moom nan lay moo lan mooy nekk iddaam ak ki yàlla nattu jëkkëram jéppi ko soppi ko golo kooku lan mooy nekk iddaam loolu rek laa bëggoon nga leeral lan ma ko mu wër mu wër wër wër wër wër ci xelam xamu ko mu ne ko vraiment loolu xaw ma ko mu ne ko kon nag doo wàccee sa bopp rek tegu ci suuf. wallaahi. wàcceel sa bopp tegu ci suuf. ne ko nag maa ngi dem mais dinaa la ko gàgganti nga xam ko pour ko ëllëg a tax. pour ëllëg a tax pour wan la ni yàlla am loo ni xam naa ko ba dajal ko rek am na loo xam ne. am na koo xam ne wallaay ay doomam a koy euh, mooñe seeni kii. jeex na léegi nag mu ne ko mhm. eh, ki yàlla soppi jëkkëram xeer. Mhm. kooku jëkkëram dundul ay detul lay def. Mhm. mu ne ko yàlla ja jëkkëram golo kooku jëkkëram mu ngi dund ay dëttu talaaq lay def daan ko maa ngi dem au revoir. allahu akbar allahu akbar donc sëriñ bi. waaye waaye man na gis nga loolu Oustaz bala ñu see jàll damaa am benn gat démb. gat <laughs> bi ñu bëri dañ koo laaj démb dañoo nekkoon institut islamique may nuyu sama mbokk xalpulaar yi ñoom Marème Assa ñu leen di ndokkeel conférence bu dal. macha allah conférence xam-xam. <laughs> Oustaz neexul ba neexul mais suñu mbokk xalpulaar yi jàngkat lañu. ah yow sëñ bi. démb Oustaz euh, Mouhamed li li la sant ku mën ku mën miiras la. Mhm. dama koy dama ko mës a déglu ci benn audio muy def miiras ak ki nekk 2S te muy def euh, tafsirul Quran bi foofu. Abdoulaye euh, Abdoulaye Ba ak ak ak inspecteur Wan. Mhm. mais gis nga conférence bi kenn nooyuwul. weñ sax bu doon jaar xam-xam rek mooy dëkk démb dama ñëwaat daal di daal di waat sama téere yi ma wàcce woon ci suuf <laughs> dama leen fëgg yëpp yëgalaat leen ci kaw ne leen nag bu euh, waree Ramadan passé damay demaat kër dem daal daara aji binta caw nag laa jëm tàggu naa la boo ma gisulee rek maa nga fa ah, waaw di nga yeewu ndax keroog moom it samedi mm. def na lu am solo foire moom aji binta caw ak njabootam mais sa xol bi day sedd ba nga xam ne danga naan Sénégal lii rek mën na koo téye. wallaay maa ko lu mat juróom benn téeméeru xale yu jigéen kenn amu ci dix ans. est ñaata téeméer mokkal ci alquran junneeg lu topp. jaar ci benn loxo jigéen joo xam ne tey su la rombee mën fa bi muy sol jarul sax junni. ma ne ko ak ak oyof ci kaw waaye ak a diis ci biir diis allah yàlla na ko yàlla amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal eh, leen di ndokkeel ñoom Anna Ndiaye ñoom eh, madame Anne As ñëpp ñu leen di ziar hmm. démb dañu dem ci grande mosquée bi ñu bi tisbaar jotee rek ñoom dañoo arrêté nañ julli ci hmm. mooy wan-wan yi xam nga ñoom ñooy almaam yi hmm. ñu dugg julli mais ñun bi ñuy dugg fekk na dafa xatoon léegi ñu julli ñu fekk leen ñoom ñu rawee ñu ñaari rakkaa ci ñetteelu rakka bi ñun lañ ñëw bokk mais bi ñu paree imam bi dafa def sujud baada salaam man na xaw ma en tout cas ñaar rakk yi ma fekkee moom euh, jamono ci jamono ci xañ na yi jiitu booba ñëwaguma léegi ñun ñu war a mottali suñu ñaar rakkaa yee léegi nag ñun sujud bi ndax dañ ko ciy topp dañuy def dañuy xaar ba pare am ñoo xam ne dañoo sujootoon moom ba pare soog a jóg man nag damaa bokk si ñu jóg ba pare soog a sujjóot mais nag vraiment bi ma ñëwee bëggoon naa ko gëstu ma gisuma ko man leen sama mufti laay xaar man kay duma fi nekk di gëstu ci oustaz boor nekk. anti ala sawaab <laughs> waaw. anti ala sawaab maanaam li nga def noonu la. pourtant nag teguma ko sax ci xaayda dama dama de réflexe rek bu ma ñëwal noonu la. mais moo tax ma ne naa ko fi laaj. parce que ñëpp amoon problème démb. dañu wax ni. Mhm. Eh, boo amee ci julli imam benn rakka. xam yow mas bokk nga. am nga ci benn rakka. lu imam bi war a def. ba ba muy sëlmal. da nga koy def. lu muy def après sëlmal yow da nga koy def après sëlmal. loolu mooy qaayida bi. par exemple am na sujuutu baada. waaw am na sujuutu baada. waaw moom su sëlmalee ba pare la koy def. léegi yow buy def sujuutu baada bi bu ne asalaamaaleykum rek yow teqalikoo nga ak moom. parce que man sax bi may bi may teqali ko ak moom man bi mu bi mu man xooluma dafa ne asalaamaaleykum rek. nga jóg man ma jóg yëkkati bi ma yëkkatee laa gis ne nit ñaa ngi def sujjóot bi. Mm-hmm. ma gis sajda tey nii mais boobu man engagé wu naa pour julli sama ñaar ràkk yi ma rëccoon. Mm-hmm. bi ma paree nag ma indi sama sujjóot. Mm-hmm. Euh, parce que am nga parce que sujjóot ci. waaw parce que da bokk ci julli gi. ci julli gi amoon aqal la min rakkaati ba ci amoon lu gën a tuuti rakka. du ma ci bokk sujjóot bi du la engage waaw benn sujjóot ci ñaari sujjóot yi du la engagé. alors bu fekkee am nga ci lu ëpp benn rakkaa nag wala lu ko mat su boobaa su di da lay engagé su jóot bi muy def avant sëlmal da nga koy topp ak moom parce que sëlmalagul bu doon xabla salaam dama cay da nga moom parce que sëlmalagul mhm. mais bu dee banda salaam bu ne asalaamaaleykum moom libéré na la <laughs> kon mbokk yi euh, démb loolu moo doon euh, dars boo xam ne tey bëggoon nañ ko baaxee pour nit ñi gën a gëstuwaat oustaz julli problème la ci Sénégal ñu bëgg ak ñu bañ problème la ci Sénégal. Euh, xam nga ñun ñun suñu problème mooy. Mhm. dafa am lu ñu yàlla wax. Mhm. mais dañ ko lànk. waaw ah bon. waaw. Mhm. fas alu. ahla dikr. in kuntum. laa taalam am na loo xamante ne bi boo ko jekkuwul. da ngay dem rek par modestie. nga laaj ko ki ko jekku. ah euh, daal yàlla na la fay. yàlla guddal sa fan ma di la wax nag Oussa waroon naa ko fi fekk Oussa Assane hmm. parce que moom nag daa bëri ay gel yu bees ah. gel laa leen di tuddee parce que nee nañ ma ñoom maire na koy buub ca la bokk nee na moom dafa nag Oussa Assane te nee naa ko waa ak bàjjen ma te nee naa leen ak bàjjen ma jigéen fële ca Ndar waaye nag Oussa Assane li ma si jaaxal xaar mbay moo jëloon affaire bi xaar may nag am na lu mu manqué le woon moom la waxoon bàjjen may galas na ko ko wutale ak ñoom a yem ma nga daal ma ngay wut ndimbal dafa mel ni dafa ayee la dem su ko defee Oustaz tey xam ngeen tey la laylatu qadr mm-hmm. bi ko lenn ci suñu ay mbokk macha allahu taala Cheikh Ahmadou Bamba yàlla nañ ko yàlla fayal ak njabootam ak ñi wekku ci moom defoon àjjuma bee paase ñun ñëpp ñu ànd def ko waaye lu baax du doy déedéet Oustaz fadlu joo gis am na afdal waaw soo boolee yëpp nag da ngay boolee am ñaan ñëpp kon tey tamit ba màkkatal mukarrama fépp ci monde bi tey la ñuy taxawal lu ëpp ci monde bi mm-hmm. tey la ñuy def seen laylatu qadar mm-hmm. kon oustaz dama lay jox foofu nga may ñu ci tuuti waaye bul fàtte ne oustaz soxla nañu zakatul fitre bi nga dugalal ñu ko euh, ndax ñu bëree ngi laajte su suñu nekk bitim réew pour ñu xam ko mais am na ñu bëri itam ñuy laajte aytul fitr bi niñ koy taxawee xam naa loolu sax moom dina mën a xaar mhm. ba euh, après demain mhm. nga xam ne ci la ñuy tëjee insha allahu mhm. taala mais daal di la wax ne euh, Penda Dial bi nga xam ne soxna la ci Serigne Mbaye Abdou. est-ce que nee na Serigne Mbaye bëgg gi mu bëgg émission bi. alhamdulilah nee na topp gi mu koy topp. nee na ni mu ñu apprécier mu ne ma Fat bint loolu musuma ko gis mu def ko ci lenn. xam naa ni daal moom bu ñu waree ba pare. waa il faut ñu ziare ji ko. dem waaw waaw waaw man moom moom moom. ñu dem yóbbu suñu sukkaru koor donte ne benn paquet la sax si Malick moom xam na ne euh, macha allahu taala suñu càmmeñ la. ndax umu xayri si. Adja Umu Xayri maa ngi koy nuyu bu baax moom it maa ngi waaj a yóbbu sama sukkaru koor sama yaay Fatou Camara Jibi Anta booy yaayu dégén bokk na ci ñi ñu war a ziyaare ji te ñun ñii ñoo koy ànd macha allah taala te xam nga wax naa la ne la li ma bokk ak Serigne Fallou damaa bëgg a dem seeti sama nijaay Abdou Karim wax ko ko kon yii moom mënul ñàkk président yu Ndour it maa ngi wut audience ndax moom il faut que ma dem ziyaare ji ko ci <laughs> ndax damaa indi woon sama morso bu xonq waaye morso bu ummu Njaay ñoom madam ba ñoo ko nangu ak ñoom miyaa ne ma déedéet ku baax miya madam ba waaye kooku kooku kooku njaay njaay njaay njaay njaay buuna la ah, masha allah su ko defee oustaz tey loolu ñuy may tey ci la laylatul qadar ji nii tey ci guddi gi mhm. mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko doon dundalee ñu xool lu ñu ci mën a am tey Seyda dafa am baat boo wax sànq. mooy fiyaa yufraqu kullu amrin hakim. xam nga guddi laytul xadar dafa am benn particularité. xam nga mooy guddi alxuraan. waaw. mooy guddi alxuraan. ci la sunu borom wàcce alxuraan muy sunu njariñ tey di suñu njariñ ëllëg. xam nga boroom bi dafa wax ne maa wàccee alxuraan muy seen teraanga. oustaz di ko làkk ci arab ndax man arab daf maa neex ko wax ci arab laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi dhikrukum allahu mhm. sunu borom nee na maa leen jox alquran muy seen teraanga euh, wax naa la ne suñu mag ñu nekk fii li leen teral du sant déedéet déedéet sant mhm. kese mhm. teral leen parce que sant waa ngi fii woon te kenn bàbbeekul woon seeti leen allahu akbar oustaz yaa wax dëgg sant wi. mu mm. ngi fi woon te kenn baat beekuwul dem seeti leen. te am nañu ko sant te seeni maam defuñu ko woon. te kenn seetiwule kon nekk sant yi tax ñu leen di dem. alquran mooy ndey ji. damaa gis barki dem benn vidéo. Mm-hmm. ñuy dóor boroom parce que dafa wax ne moo ngi mu ngi sëtoo ci diw. ñuy dóor waa ji parce que naan ko lu tax nga naan man diwoy sama maam te du sama maam nga ci lekk addiye di arnaqué. Mm. ma ni cey mbaax gara la fay dab. waaye am na baay am na sant. mbaax ga donc fa yóbbu. te mbaax googa nag li ko li ko ràng kooka. Mhm. alxuraan la alxuraan rek la. moo tax yàlla nee na mooy seen teraanga. Mhm. waaye nag oustaz am na ñoo xam ne ñoom seenu ahlul quran dañ cee boolewul dara te kenn mënu leen cee contre kii si dëkk bi. déedéet. lu mel ni kokki mhm. lu mel ni euh, Fass ah defe naa buñ ko fi njëkkeewu leen de ah. kenn jiituwu leen ci de man de hmm. maa ngi nuyu sëñ maa ngi nuyu mooy eh, oustaz Malick Fall docteur Malick moo moo ñoo ñoo ñoo yore pire est-ce que ñoom jiituwuñ fi Cheikh Omar Foutiyu eh, jaar na fa sax daara ja li ñu wax. kon dafa fekkoon daara ja am. dafa fekkoon daara ja am moom Cheikh Oumar Fouti. waaw nga ne moo ñu annoncé Seydi Hadji Malick. Mhm. moo ñu annoncé Cheikh Ahmadou Bamba. moom jaar na ci daara ja kon sasul daara ja ba mu fay jaar fekk na daara ji am est-ce que daara ja ëppul léegi juróomi téeméeri at. damay bañ a wax lu ma xamul. ndax euh, ci contrôle oustaz Tahir Fall ak oustaz oustaz Malick. oustaz Tahir Fall moom mboq baax na bu yàgg ba mu. <laughs> waaw tooñ naa ku ma ma ku ma ku ma warul tooñ. maa ngi koy nuyu de passage oustaz Tahiru euh, réseau islamique population maa ngi koy nuyu bu baax. <laughs> mais beneen taay beneen taayir beneen taayir. ah bokkul ak Tahir Fall bii ngay wax Tëngéej li ak beneen taayir bu pire. bu pire ah defoon taayir taayir bu Tëngéej laay wax. <laughs> Moussa <laughs> taay ñaar taay yëpp baax. ñaar ñëpp baax wallaahi. ñaar ñëpp baax macha allah ñu ne leen baax ziar leen. bi bi buti ngéej bi moo mag bu bu bu piir bi. ah moo mag bu pire moo ko moo ko ëppi at. moo ko ëpp at. tabaarakallah macha allah pour wane ni ñoom dañoo baax. Mhm. oustaz Malick Fall moo nekk ca yor yor yor ba. Mhm. di mokkal loo xale am na benn faw ji bu war a génne sax dama xamul euh, bu bu génnul ci semaine bii semaine bii di ñëw la génn. macha allah tabaarakallah pour wane rek ni. Mhm. alquran bari na ñu ko yor jëmbat ko fi saxal ko fi. di ko dundal nag te boolewuñ ci benn coow nii tampour ni ni tampour ni trompette. tabaarakallah macha allah. alquran moomu nag moom la yàlla jox mu suñu teraanga ñoom ñu ëpp lu ci fulla nag sonn ci. ñoom ñëpp ñu ful sonn ci donc léegi ci la yàlla ci guddi googu la ko yàlla wàccee Seyda guddi laylatul qadr guddi laylatul qadr inna fii fi laylatil qadr laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr seydaa bu ñu taxawee ci baatu xayrun min alfi shahr ñu nekk ci fukki fan yu mujj yi xam nga wax naa démb ca tafsir ba ma yi alfu shahr mooy un milliard Alficha. Hmm. mooy un milliard. un milliard un milliard bi may wër. bi ngay wër bi ngay wër. waaw mooy Alficha. ci naka oustaz. Euh, xam nga pour nga am un milliard il faut nga am millions yu dul teg yu tegaloo. mille millions. waaw mille millions. comme mille mois. mois bu nekk ñu tegal la un million. kon ñun ñu amagul milliard am nañ ko ci bu ñu dundalee. Ah, laylatul qadr waaw kay loolu laa bëggoon comprendre ko rek. xam nga ki juddu. Mhm. ñu ne ko ñu ne ko weer wu nekk versel nañ li ci sa compte million. Mhm. muy koy def di ko def ba mu am quatre-vingt-trois ans yu teg ñeenti weer muy doog a am un milliard. waaw. cey. de goma de. wallaay dégg naa la. kii juddu. juddu tey jii. ñu ne ko weer wu nekk wersel na ñëw million. Mm-hmm. ba mu am quatre vingt trois ans yu teg ñeenti weer ci lay doog am benn milliar benn milliard. sunu borom ne guddee ngi goo xam ne guddee ngi goo xam ne boo ko dundalee dugal naa ci sa compte un milliard. ci tuyaaba. un milliard bële na nga njëkk am fële ñu la koy versel fële. Mhm. ba ngay am un milliard boobu mën na am lu lew dugg ca mën na am lu lew dugg ca sunu borom ni la un milliard àdduna bii di yow dong. Mhm. yaag ñëpp a ko bokk kon génnee ci azaka génnee ci muuru koor defal ci néew doole defal ci lii dem ci màkka dem ci màkk mhm. fekk yaa ngi koy mën mhm. wax naa ko barki dem bu ma ne da ngay gis koo xamante ni kii takk na lu ëpp ñaar fukki passeport yu fees ak visa benn visa amul ci bu jëm ci yonent bi salaa sallam laa la illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah war nañ ko wut laa ilaha illallah moo tax léeg-léeg nga am dara nga war ko sant yàlla allahu akbar allahu nga ko nga war ko sant yàlla Seyda guddi googu nag yàlla defal la un milliard tuyaaba xayrun min minimum bi mooy mooy milliard mu versel la ko sa nga dundal ko bu fekkee dangaa natt ni man mii kat fukki fan yu mujj yi bis bu ne dinaa ko seet bis bu ne même boo ci dalul suñu borom versel na la kon sax dama ni même boo ci dalul laax ci fukki fan yi benn fan yi ngay jël te te du moom. Mhm. fan yooyu suñu bor moom versel ne la. par milliard milliard par milliard ci sa compte. léegi nag mu des nga war a tombeek dal ca bis booba. Mhm. yàlla def ko nag ci xayrunam ji. Seyda xayru na yàlla bu xam ñaata milliard la. waaye waay xayru na doomu aadama sax yiw la sababu yàlla. donc loolu nag mooy avantage yu guddi du xadar. mu am beneen njàngat mu ci nekk Seyda. ndax yaa wax léegi ne fiyaa yufraqu kullu amrin hakim. wallaahi Seyda guddi googu. ci la sunu boroom di tanfise. yi mu jëloon di exécuté. waaw yi mu waxoon. xam nga yëpp bindoon na ko teg ko ci lawul mahfuz. ci la koy jële ci lawul mahfuz toxal ko indi ko ci kayit yi. jox ko ñi ko exécuté. loolu la sëñ Moustapha doon wax sëñ un yubdihi wala yubtadihi. ah mu ngoog. cay si Malick Euh, am nga junni de ci tudd gi nga ko fi tudd rek. wóor na yàlla xam naa loolu. Euh, bu la ko woon tudd da ngay yàq émission bi ah. <laughs> jégalu jégalu jégalu jégalu waaye si Malick. xam maa ngi koy ndokkeel démb moo nekkoon anniversaire am. ah happy démb la am juróom-benn fukki at ak juróom-benn. yow déedéet yow man ma defe ne Serigne Moustapha 50 ans la am. le 10 juin 52 la judd le 10 juin 52. macha allah. ah kon ne mook soxna Aïcha ñoom seen anniversaire yi dend nañu kii kat xale bii kat ndekete xaw na am teraanga tuuti sëñ Moustapha buñ ci dugg ah, nañ bàyyi loolu parce que buñ ci duggee <laughs> day day day émission bi day dévié wu day ah, dévié wu day day yàqu naa maa ngi dégg waaye xam nga moom mhm. sëñ Adi Touré ma waxoon ni waaw mboolem wàllu yi naw naa leen ci yàlla bu wér mhm. waaye gannaaw ba jaayante nag Cheikh Tidiane mhm. mu ne bu war jot naw nawal ñëpp mhm. mais bu war jotee xamul ku yëg ci sa ginnaaw allahu akbar allahu akbar Seyda waaw guddi googu guddi la guddi laylatu xadar bi waaw guddi laylatu xadar guddi la bu rëy si dem maa ngi lay ziar bu baax euh, léegi sunu borom wàccee na ci alquran fiyaa yufraqu muy shay'un yubdihi wala yubtadihi muy lu muy génnee mais du lu muy tàmbali. du lu mu sas. guddi googu ci leen ci la malaaka bi di jotee feuille. xam ni diw mii kat feebarul tey jii. mais bu subaa dana feebar. waaw yàlla bu ñu bokk ci ñi feebar. amin wa ñun sax feebar nañu ba pare waaye yàlla nañu bokk ci ñuy wér. Ah, guddi googu ci lay def. lay dox nii di gis nii diw. xam ni diw mii kat déwan du ko fi fekk parce que dëkk bi génn ko yal nañu yàlla boole ci ñuy fekk ay déwan yal nañu yàlla amin ya rabbal alamin e waaye ne leen amin euh, guddi googu spectateurs yi yéen ñëpp ne leen amin yàlla nañu fekke dé amin ya rabbal alamin waaw guddi googu mhm. ci la ñuy fekk ne koo xamante ni kii commerçant la woon du sii woon mhm. yor alal ju dul jeex mhm. ndekete sunu borom xalbu na xaqiqa bi nee na neen dama koy fay dama koy dama koy daaneel dama koy daaneel day tombe mu jekki jékki rek ma perte marché ay milliards. parce que ci loolu ci ay quelques minutes. ci la ci la ko yàlla di dogal. allahu akbar allahu akbar. guddi googu ci la yàlla di yëkkati néew ji doole yëkkati ko ku yorul woon tus. sunu borom ne kii kat dogu naa ci ne léegi multi milliardaire lay doon. allahu akbar yàlla nañ ci yàlla boole te ñu def ko ci lu neex. yàlla mooy loolu mooy fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim. man maa sëyagul woon ñi sëyoon te amaguñu doom lépp luy xew ci àdduna rek guddi tey gii. incha allahu taala bu ci tombee mm-hmm. ci la ci la ñuy euh, wax li xew yëpp li ngay li ngay dund at mi yëpp waaye yow kon oustaz kon tey comme loolu mooy am kon yow nit ki doomu aadama bi yow ci lan la tey guddi tey gi lan la la war a fekk euh, Seyda guddi gi ci lim la war a fekk mm-hmm. mooy ci loo xam ne bu la ci yàlla séenee nga bëgg ci yow ba nga jaral ko mu tiitalu si Seydina xamoon ne yàlla dana tiitaru ci jaamam. waaw waaw waaw. jàkkaarloog malaaka yi ne leen eh kaay leen ñu ñëw mu leen gis ngeen borom fa bu bënd bële. wala borom kumba su gàtt sële ndax la ndax borom borom kële nga xamante ne amul lu mu dépensé ba takk biiram dama jaral ko. Mhm. xool leen ko kële bég naa ci moom. yàlla nga bokk ci ñi yàlla di tiitu parce que dalay fekk foo xamante ni fii daf la fa war a gis yàlla nga ñu boole ci ñi nga xam ne bu ñu xoolee bég te bu ñu xoolee yàlla bu ñu jéppi amiin yaa sunu borom bu ñu ñëpp jéppee yàlla boo ñu jéppi amiin yaa rabbal alamin euh, Seyda guddi googu nag ci la yàlla di ci la yàlla di di di di di di di cax malaaka yi cax bi mu caxoon malaaka yi mhm. ca la ko yàlla di tekki caxu atajaalu fiha man yusidu fiha waaw ca la koy tekki mu ne xoolal oustaz Mor ca TFM fa mu toog ca wareefu Ramadan kii de xanaa moom bokkul ci ñuy yàq àdduna ah, kii de nekkul muqaddamu seytaan nekkul nekkoo muqaddamu iblis waaw yàllaa ngay wax ak malaaka naan xoolal ma leen xoolal ma leen ah, xoolal ma leen waa waree Ramadan ah, guddi googu la guddi googu la xam nga bi yàlla bëggee bind aadama mhm. te mu mel ne dafa def concertation te waru ko yàlla warul laaj kenn dara laa yusalu amma yafal wa hum yusalun yàlla moom kenn du ko la te it laa muaqiba li xukmi yi yàlla jugé nga ñaan appel amul allahu akbar allahu akbar nañu yàlla boole ci ñi mu gën a sopp xam nga lu tax ñi mu tàndal boppam xam nga lu tax Seyda hmm. parce que lu mu def doo koy def ci àddal xakim la aadil la waaw te wamallahu bi zalaamin lil abid donc yooyu nag hmm. moo tax mu ne ba mu ne malaaka yi ne leen ah damaa bëgg bind doomu aadama yóbbu ko fa la ci cité yële ma tabax ba pare. cité yi mooy àdduna. ñu ne ko boo ko fa yóbboo da koy yàq. atajaalu fiiha. man yusidu fiiha wa yasfiku dima wa nahnu ba pare nag nga daaneel lenn ba pare yëkkati sa bopp wa nahnu xam naa boobu nag gënalu ko woon wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak xam nga ñoom waaw ñoom mhm. dañoo jàpp ne ñoom rek la yàlla am ci jaam allahu akbar oustaz loolu léeg-léeg mu dal ñu ñun nit ñi fii ñu defee ne ñun a kese fekk jamono bu ndaw la. laa ilaaha lu mu taal lu nekk ndox ma koy fay bindaale na ko. bilaay maa la ko wax. waaw waaw. Euh, te gis na bëggul fu lu metti la. waaw taxaw di yëkkati sa bopp di toroxal nit. lu metti la. jukka la bu malaaka yi def. Mm. sunu borom di leen wan ni. Mm-hmm. boobu waru woon nekk. wa nahnu nuqaddisu lak wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak waaye tontu na leen ci saasi. ok inni aalamu. maa la taalamun duma seen morom dem leen tëddi. léegi inni aalamu maa la taalamun fi mu koy wanee malaaka yi. waaw mooy guddi laylatul xadar. foofu nag mu daal ne yóot maam Adama. waaw wa allama Adama asmaa kullaha. wax déey ko lu mu leen déeyul ñoom. lu mu leen déeyul te moom moomu doon déeyee ba tey mu ngi déey ay nit. waaw te ñu ngi ne pat. waaw parce que nag bëri ko bu feesee. du bari lu mu yëngu. du yëngatu déedéet. waaw léegi nag déey gi mu déey maam Adama. Mhm. foofa mooy épreuve yu njëkk bi. Mhm. bu doon film la ñu ne mooy lancement bi. Mhm. ba mu ca jógee dafa am leneen lu mu def. dafa bàyyi ba guddi leetul xadar. mu ne malaaka yépp ay wàcc leen. ay wàcc leen te nazzalul malaayikatu waaw. Jibril bëgg a toog mu ne moom sax day wàccaale ko aywa xam nga léeg-léeg président premier ministre yoon yónnee ah. ba pare bëgg toog président woo ko ne ko déet gëwal ci nga bokk ci ñuy dem nga ñuy dem nga war a bokk ah, kay mu daal di malaaka yi wàcc nañu ni xeer yi toll malaaka yi leen di ëpp kon foo toll tey ci guddi war ngaa bàyyi xel ne bokkul maanaam sooy dox sa mbagg ngi dalanteeg mbaggu malaaka waaw mais xam nga yaa ngi amoon ñaar ñoo xam ne permanent lañu hmm. ñooñu duñu teqali ko ak yow minimum minimum minimum waaw dinañ am période bu ñu teqali koog yow. déedéet dama ne minimum. minimum waaw minimum ñaar ñooñu. mais kenn ku ci nekk yàlla affecté na la 10. yàlla affecté na la 10 ba pare oustaz li ma si gën a jaaxal mooy commission yi nga xam ne léeg-léeg ñu ñëw dugg ci sa biir di travailler. mooy ki ëmb. ok moo tax ma la minimum. ak kii kii sukuraat. Euh. kii waaj a dem. warta fati saaqu boobu bi saaqu ila rabbika yawma izin masaaq kii waaj a dem 14 koy assisté 14 ñoo koy assisté kon nekkte kii waaj dem fukki malaaka ak ñeent ñu ngi dugg ci biiram commencé ci baaraam yi di ah, yéeg bu kii monté ba si oom yi wàcc kii ñëw ba ci ndiggali wàcc léeg-léeg mu nekk ay weer ah. léeg-léeg mu nekk ay jour léeg-léeg mu nekk benn seconde seconde mooy oto bi ne tëll léeg-léeg mu nekk sax ci sujjóot nga ni allahu akbar dëpp ci sujjóot moo tax dañu wax boo ko bëggee danga koy ñaan sa borom man de Médine laa bëgg ah. boo ko bëggee man daal Médine laa bëgg waaye nag bu mu nekk ren bu mu nekk at yii yëpp na xaar ba Amina di sëyi ba pare ba tudde ma doom la <laughs> ah yàlla kat maam Abdou nee na ma. dama am góoram boo xamante ne bi moom dafa def ci boppam ne le premier juin la war a dee moo tax mois de mais fin mais rek day sibru <laughs> man nag saa yu ma demee Médine <laughs> xam nga damay ñaan yàlla toujours yàlla naa fa ñibbi yàlla naa am kër bu ma retraité xam nga fi mu nekk maa ngi waajal sama retraite ndeysaan at yi ma desee kus néew maa ngi ñaan yàlla yàlla mais léeg-léeg nag ma ñaan yàlla bu ma demee baqi ul arqat ah, ma ne oh. yàlla laa bëgg a tëdd de nag bu ma demee Médine moo tax saa yu ma demee Médine <laughs> ma ne yonent bi papa waxuma ren de ba koo def fekk ma dëkk si fii ba bàkkaar yëpp yëpp yëpp hmm. set macha allah taala alhamdulilah waaye téléphone bi itam ñu wax ne mën nañ ci bokk hmm. encore tam euh, di wax ne euh, gaañ yi hmm. pañe ndogu bi tey dafay am solo ndax laylatul qadar bi macha allah alhamdulilah waaw waaw oustaz waaw léegi léegi malaaka yi suñu borom leen wàcc leen wàcc na chef bi wàcc 14 yi ñooy ñëw bu dee biir bi itam jigéenu biir bi na xam ne mu ngi ànd ak ay malaaka ak bokk 10 yi nga xam ne tout le temps ñu ngi ak ñu ak yow moo tax gis nga boo wéetee moo tax ku nekk am na garde corps gis lu leer la. <laughs> lu leer la. est que xam nga nit ki su fattoo. su fattoo malaaka bi yàlla dénk bët. day dem dem bind rapport pourquoi mu sàggan ba nit ki fattu. waaw kooku tamit sëriñ bi sëriñ bi ma tudd waxoon nañu ci benn bés ci problème mu sànqaleñ baag. waa ndeysaan waaja allahu akbar. maanaam maanaam doomu aadama la yàlla teral ba yegg foofu. moo tax saa yoo ko toroxalee rek. wala nga xas ko wala nga ŋàññ ko. wala nga tooñ ko wala nga tooñ ko sunu borom day réagir. te te gis nga oustaz lu lu jar a bàyyi xel nga ni Sénégal léegi dañu commencé mën a tooñ. baaxul de. baaxul tooñ sa moroom. tooñ ki la est-ce que ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum ah, salaam. mel na ni rëcc na. waaw ñu ñëwaat incha ah, allah ñu baal jéglu euh, téléspectateurs yi. aywa salaamaaleykum waaw ñëwaat na. allo maa ngi ok bisimilah mbokk mi. Mhm. waa ñi lay dégg sëriñ bi. sant yàlla bu baax alhamdulilah. barakal. bisimilah bisimilah. bisimilah. waaw kay. salaam. damaa mi ngi lay dégg ni tur bi ak fooy wootee. Seyda maa ngi tudd Maymuna Diop. ah yow sa tur neex na sa sant neex na. Eh, <laughs> kii provocatrice la ah, ah, xaaral xaaral xaaral nopp bu baax bi laa la joxoon xaaral ma jox la beneen nopp bi mais mun a foo dëkk. man li ma may <laughs> mun a ñaata at nga am. Ah, man am naa 30 ans. 30 wër na yàlla may naa la oustaz Assane ndax fan nii yëpp ñu ngi wër kuñ ko may ko am 30 ans ku tuddoon may mun a sax bi ma listixaaree laa gisoon. xanaa kon kaaw kaaw yónnee na ma message nee na xaraam xaraam xaraam nee na bëggu tey bëggu la ëllëg doy naa ko sëkk man ak soxna abu ak Binta Diallo même àjjana sax xóorul ay nii kaaw nee na bëggu ko kon may mun a du leer na sa bopp mais mun a waxal. waaw mais mun a laajal wóor na yàlla duma la tontu oustaz jël ko ndax mais mun a mi tàngal la sama xol tey. léegi dañuy faral di sëyal góor yoo xam ñun ñoo leen mag. ah da di am jëkkër yu ndaw. waaw joo xam waaw kay. waaw. léegi est-ce bi nga xam ne moom ngay moom ngay magee ku góor gi amul limite ci lislaam ok waaw oustaz oustaz a ngi lay déglu man may mun a aw maa benn affaire <laughs> may mun a nga xaar ba koor gi di jeex ngay tàngal sama xol ci émission Wareef bi. ndeysaan dañ ko tontu léegi incha oh, allah moo tax sax ko pañe ndogu bi ndax pañe ndogu bi mënoon naa ko may waaye moom du laal dara tey oustaz tontu ko. <laughs> jëlal keneen salaamaaleykum. salaam. ok. bismillah. allo. bismillah waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. leen def. ñoo ngi sant yàlla. maa ngi ziar bu baax ci weeru tedd bi. waaw ah, soxna si tur bi naka la fooy wootee. madame Thiam maa ngi wootee ah, baax nga. Thiam <laughs> yéen a ngi lay ziar naka waa Fass. ñëpp a ngi fi bisimilah. man nag dafa amoon benn laaj bu ma bëggoon laaj. Hmm. waaw. comme man ak sama jëkkër kese ñoo dëkk. Mhm. léegi dama doon laaj nan la ñuy génnee muuru koor daal. Mhm. waaw. baarakallah. baarakallah soxna soxna si dinañ la tontu léegi. aywa keneen ki topp ñu jël ko salaamaaleykum jël ko. loolu nag bëgg naa ci pañe ndox. yee yow moom dama lay may pañe ndogu may mu ne moom moo dul laaj laal dara. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw waaye waay moom mi doon kii noonu ñu bëgg koo may pañe ndogu. dem na dem na dem na ah, dem na na woote waat. jëlal kii. wax la moom salaamaaleykum. waaleykum ah, na bu baax. ah bi. ñun ñoo gën a kontaan. vraiment na waaw kay jërë ngeen jëf tur bi. ñaanal gudd fan amin amin yàlla nañu ko yàlla boole ak mboolem jullit. waaw lépp loo leen bëgg allahu taala bul dem nga nga kii nga woot nga nga bàyyi sa tur ak sa numéro téléphone. jël jël ko dinañ ko jël incha dinañ ko jël ñoom dinañ ndax pañe yi nag nit ñi aajo woon nañ ko dañ ko war a yokk sax nag ndax fukki fan yu mujj yi mhm. ñu ngi ñaan suñu partenaires yi ñu yokk pañe yi waa waa kii xam naa ñoom monsieur Dieng ñu ngi may dégg bu baax ñu yokk pañe yi nag jox nit ñi nag ñëpp békk encore tam oustaz ñi am euh, muddum koor yi. Mhm. ñu teel koo préparé. incha allah pour man ko jox ba nga xam ne loolu tamit di nga ci waxtaan tuuti. mais tontu soxna Maymuna. waaw ki mu laaj ci. waaw ci affaire sëy yi. waaw ndax am na âge minimum âge bu gën a tuuti. waaw déedéet euh, tënkuñu ko ci benn benn benn âge. Mhm. ni ni jëkkër ji na magee na ko jabar ji magee nangam. Mhm. dafa tolloog nag yonent bi salaa sallam. xam nga lu mu def rek yàlla defloo ko ko li xikmatin moo tax. ñi mu takk ñëpp li xikmatin moo tax. parce que li mu doon liggéey ak ñi mu doon liggéeyee. ak fi mu bëggoon daaway propagé fi. daawul woon ci kër gu yaatuwul. daawul jël ci kër gu yaatuwul. bi muy jël Khadija. doonte fekk na Sayyidatuna Khadija radiyallahu taala anha jóge na woon ci sëy. waaw mage woon na ko 15 ans. terewul jëloon na ko li xikmatin. li xikmatin. léegi nag. ba ca dàq. ba ca dàq. mooy booy sëy nga sëy ak sa moroom moom la conseillé woon. Mhm. bi ko waa ji ñëwee ni ko damaa takk soxna. Mhm. diw laa takk. Mhm. mu ne ko hal laa bikran. mënoo woon tànn koo xamante ni ki moo gën a tuuti kooku. jànq jànq sax. waaw jànq. moo gën tuuti kooku pour bañ a pour bañ a pour a frustré <laughs> jeeg jeeg jooju ah mais jeeg ji itam amoon na temps bu ñu nekkoon jànq am ku leen ci takk waaw kay mu ngoog wala xam nga nag ku nekk nag sa cër day sa cër waaw kay mu léegi mais amul amul amul ne diw mi kat na at bi na toll dix ans wala cinq ans wala quinze ans mhm. euh, tënkuñu ko ci loolu mhm. mais euh, sëy koo xamante ni kii euh, bu génnee nga mun ko présenter dafa am loo xamante ni bi xaarida dund la alkafa waaw muy sa nawle nga mën ko génn présenté ko ne mooy sama borom kër te du jur ñu xeeb ko du jur ñu xeeb la loolu dafa ciy bokk ci kafaa bi waaw dëgg la dëgg la su ko defee loolu moom xam naa ne am na problème parce que am na xale yoo xam ne seeni waajur bu ñu sëyee ak da leen di frustré daal te léeg-léeg day indi jote ci kër gi gis nga sëyda waaw ndax am na njaboot euh, yoo xam ne dafa am jëkkër boo xam ne dafa am mhm. ko su la ko yàlla joxee ba ba weddi ko mhm. moo xam ci ñaari weddi bu ko ci yàlla weddi da nga war a wut ku mel ni moom tolloog moom mhm. ou bien koo xamante ni kii kii ñëw moo koy ëpp daraja tuuti waaye oustaz am na loo xam ne benn yoon nga koy am ci sa dund boo ko ñàkkee dootoo ko amaat moo tax ku ci amati ku baax mhm. fonk ko fonk ko te nga téye ko yàlla nag sax xam naa mooy jeexal mhm. mais am na yoo xam ne boo ko ñàkkee da lay wóor ne dootoo ko amaat bu mel noonu. moo tax dama am sama benn yaay du ma tudd turam waaye damay wax waxam ndax euh, moom daf ma neex sama yaay jooju sama benn papa daf ko daf ko am mu ñàkk ko. léeg-léeg nag dama koy tooñ xam nga ñun jigéen ñi ñun ñëpp a maase léeg ma ne ko waaye yaay nag yow xanaa yaay nag sama yu ndaw yi gisuñu la mu ne soxna si li ma dund ak sa papa bi dem neex gi mu neex bugguma kenn ku ma ko yàqal ba keroog ma koy fekk. allahu mu dama bëgg di ko savourer. di ko fàttaliku ay zikriyaat ay souvenir yu baax. di ci lu neex wallaahi mu ne du ma ko fàtte moo tax bëgguma teg keneen koo xam ne dafay xejamal sama dund mu muy rax. ëllëg bu ma ko fekk jee ci diggante bi ma ciy dund lu metti man wóor na ma ne ngi toog di jaamu yàlla xam nga ji na maanaam. ci loolu loolu mooy. wane yàlla fay bu ma déggee. nekkin ba nekkin ba dafa rafetoon. waaw bu rafet lool nekkin ba dafa rafetoon lool loolu nag mooy mooy li ci nekk Seyda. Mhm. su ko defee ñu ñu bañ xam ne tënkuñu ko ci 10 ans mbaa 15 ans donte yonent bi saa sallam mhm. ki ko ki mu dencoon mage woon na ko quinze ans. Mhm. mais euh, jël na sax ñoo xamante ne bi ay mag lañu. wante loolu moom euh, ziwaajam li xikmatin moo taxoon. waaye waaye dañuy wax ne xam nga du ñëppay xadija waaye du ñëppay Seydina. déedéet déedéet déedéet déedéet. ñëpp duñu xadija. Euh, suñu yaay xadija ci sàllalu bi maa ngi jéggalu waaye ñëpp it duñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. léeg-léeg jigéen ñi ne ma Seyda ñun bëgg nañoo dund li xadija dundoon waaye ay Seydina Muhammad la ñu gisatul ci réew mi. pourtant même ñun góor dañuy wax loolu de. dañuy wax ne ah, bëgg nañu loolu ngeen di wax. loolu la ñuy wax de dañu naan ñun ak ñoo bëgg a def comme Seydina Muhammad mais gisatuñu xadija gisuñu Aïcha laay kon nag jigéen ñi sànni nañ leen benn kii de. ñun loolu la ñuy wax de. ah kon nag kon nag xam naa ne bëri na tey ñoo xam ne ñu ngi toog jàkkaarlook seen petit écran fii ci biir réew mi ak ci bitim réew waa Norvège yi nag rawatina ñooñu. <laughs> Eh, Yakumba Senghor macha allah sa xarit yooyu ak ñoom Abibatu Mbay ah ñoom euh, nu mu tuddati xale bi Ami Ndiaye sama doom jooju nga xam ne. xam nga nga am doom bitim réew. bu xoolee tele bi xool la daan ne yaay tey sa kanam leerul lan la. yaay xanaa dangaa manqué nangam yaay xanaa dangaa manqué nangam. xam nga oustaz su ma koy wax sax damay bëgg a jooy. Euh, am nga ci ay doom yu bëri tabaarkalla. waaw macha allah doom xam ne dañ ma koy dañ ma koy wax. Oh. Euh, ku mel ni ñoom Kiné oh, Sarr. wallaahi tabaarkalla ah, sopp la trop. vraiment vraiment ñoom Kiné Sarr Italie ñoom Awa ba Nantes. ah xale yi dañuy toog di ma seetaan si télé bi oustaz di ma. nan la tey nekkuloo di xalaat ne ah. ma. maa tey nekkoo lan la qu'est-ce qui se ah. ndax xam nañ ne man mënu ma tricher su ma amee lu ma naqari tuuti rek day feeñ mais loolu dafay sedd sama xol billaay sama ronkoñ yi bànneex la dëgg la ah nit ñoo xam ne dañ la bëgg ngir yàlla ba di la xool gis ne bés boobu du ñu yendal minute bu jot ñu yónnee di téléphoné ku nekk ngi xool ma maman xanaa fromage bee jeex maman xanaa xanaa tey amoo joof di la tooñ ba pare di ci def te yow seeni waajur leen jur fañ leen jure seeni papa leen jur fañ leen jure dul yàlla ak sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam oustaz ñun mënuñoo fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënuñoo fay itam suñu ah. li ma la wax mooy teraanga ji wallaahi teraanga ji mi ngi commencé kaddu gu neex googu ñuy sànni ci wallaahi wallaahi lii yonent bi ah. ne woon alkalimatu tayiba sadaqa wax ah. la mm. nga taseeg nit mu taseeg yow rek mu ne la waaye yow ajaa yaa jonga ma wala oustaz borom ree ju neex xam nga wax ju neex mm. loolu moo amoon Sénégal mais léegi Sénégal di xas nit ñi mm-hmm. Sénégal di di di di di sànni traak nit ñi Sénégal di xoñañal nit ñi susu nag ni ñu ko war a gën a dénk oustaz mooy homme de loi ñoom ñoo xam nga wax nga ko keroog. Mhm. nga ne nit ki am na juum bu muy juum ñoom ñoo la. war a delloo si. waaw defe naa am na keneen itam ku posé. deuxième question waaw ku tudd ku tudd mu ne moom borom këram ñoo nekk. waaw te nan mu war a génne mu dum koor mu di koor. waaw ñoom ñaar ñooy génneel seen bopp mu di koor. seen bopp bu dee ne yow bu fekkente ne bii nag euh, seen jur mi ngi doon dund. te ñu koy dundal waaw. te ñu koy seen waajur mi ngi dund. sax ñu tuuti ci mu dum koor mi pour ñu préparer ko. ok mhm. dama bëggoon daaneel ci ci ci ci ci. ci leeratu xadar bi waaw ñëw nag ci mu waaw comme mu dum koor mun na dund mun nañ ko dund euh, demi ak après demi waaw kon eggali si leeratu euh, xadar bi cax bi nga xamante ma tontu waa ji ci laaj bi. waaw mooy ñoom ñaar ñooy génneel seen bopp seen muuri mm-hmm. seen muuri koor. li mm-hmm. ko commencé ci un kilo huit cent ba ca deux kilos. Mm-hmm. un kilo huit cent ba ca kilo kilos. mën nañ ko arrondir rek def ko deux kilos. ñoom moo xam ceeb la moo xam lu ëpp si li ñuy dund fii ci Sénégal. ceeb la waaye oustaz bu ñëpp génnee ceeb. Euh, ndax miskin jour boobu xam nga xam nga loolu mooy masala bi borom xam-xam yu bëri. waaw Abu Hanifa de wax na ci Shafi wax na lee Malik. xam nga xam nga loolu mooy suñu problème ci ñun. Mhm. waaw. Euh, dañuy dañuy bëgg dundaloo ni yonent bi ci ñam la ko doon génnee. rek mënoo koo génnee ci leneen mënoo koo génnee ci leneen lu dul loolu. Mhm. parce que waxu ko. parce que Chafii yi waxu ko. mais ni Malik nekke borom xam-xam ñu baal ma de titwaayu ma ko. waaw déedéet mu ko axtarim Malik li anani ala madhabi. ala madhab wallaahi wallaahi xaqan. Euh, axtarimu mhm, ka aalim. Mhm. ka saakin Madina. Mhm. ka nangam ka nangam axtarimu kulla al ixtiraam. mais dafa am lu nga xamante ni da nga koy nangu keneen ku yàlla jox xam-xam. da nga koy nangu. ci taabi'iina yi. dafa am ci ñeneen ñu yàlla jox xam-xam ñu am yeneen gis-gis. am na yeneen gis xadis yu nga xamante ne bi imaam Malik mën na am gisu ko woon. wala bi ko gisu woon rëccoon na ko. yooyu dañ koy nangu. yonent bi tuddul woon ceeb. déedéet ndax ñoom tàndarma la ñu doon def ak saayir ak yooyu. saayir ak bur waaw mais tuddul woon ceeb. mais ñun dux la lañu am fii urz la am fii moom la ñuy dundee. ceeb ci boppam laa ñu ngi koy génne te yonent bi tudd ko woon tudd ko woon ijtihaadu ko ci indi ijtihaadu ko indi wallaahi macha allah kon oustaz dangay xool ne man mii tey nekk miskin ñu ne mat bés boobu dañoo maam ba war a bégal ba sama njaboot bañ a génn oustaz sama doom yi dama leen war a jëndal yére dama leen war a jëndal dàll bu ñëpp toogee ba jour ba ñu jox ma ceeb bés boobu nan laay def ceeb bi ndax ceeb bi kese dama koy togg sombi ndax sombi dina nekk añu feet ci réew mi euh, loolu mooy loolu mooy ijtihaad xam nga am na benn moment Seyda. Mhm. crise am ci Madina. Mhm. ñiy dajale ji azaka ji. Mhm. am ku ñu yebal yaman ñu ne ko soo demee bul jël xaalis bul jël xar. bul jël xaalis bul jël xar. waaw jëlal yére parce que dañoo raflé woon. kon ndeke même yére sax dinañ mën a dem ba mu ñëw gungu. parce que situation moo ko laajoon ñu la ko demal nga jël ko yére. nga jël xiima azaka bi nga jël ko yére indi ko parce que nit ñi dañoo raflé woon. oustaz. c'est-à-dire maanaam il ñi dégg la laaj daal. waaw nit ñi war a góorgóorlu. waaw waaw dañoo war a dégg. dañu war a góorgóorlu dañoo war a ubbi buntu yi daal mu yaatu ubbi buntu euh, euh, wa sallam dañ ko yónni kaafatan li naas. ñëpp lañ ko yónni. tey lii problème mu Ndakaaru du problème mu Thiès. problème mu Thiès du problème mu Saalum oustaz xam nga Ndakaaru fii glace du fi problème. déedéet mais tey Kolda may nuyuwaale ñoom euh, waa Wélingara yi ñoom Sala Diop ak yooyu mais sànq keroog maa ngi dégg ci quartier général ba Bassel Bass suñu doom jooju di wax ne dinañ dem ba mbuusu glace di fa jar téeméer ak ñaar téeméer te dañ koy wër duñ ko gis. Ali Bandel def na ci tout récemment benn benn benn envoi wane ni ñoom euh, mbuusu glace cent francs xaw ma te te te du taxaw ak yow 2 minutes. Ah, parce que te maanaam loolu. boo tànk xamuloo réalité yi mm-hmm. am na yoo xamante ne bi doo ci fatwa am na boroom xam-xam yu d'accord ñu génnee ko ci xaalis ñooña buñ leen xam-xam buñ leen xañ seen gis-gis te loola day arranger société bi mm-hmm. tey jii boo jëloon xaalis tey jii Seyda bu tey jii bu fekkoon ne da nga doon génnee am muuri koor nga ni man dama war a génnee muuri koor mm-hmm. sama muuru koor ci masalan 3000 la. ci misaal la sama muuru koor man 3000 la. bi ma war a génneel sama boroom kër bi 3000 mille bi ma war a génneel sama benn doom bi 3000 la. nga yor poulailler. nga génnee ñetti ginaar juróom benn ginaar wala juróom-ñeenti ginaar yëkkati ko jox ko benn miskin. oustaz defe naa boobooy gën a dal. maanaam loolu déggin la rek déggin la. Euh, moo ittihaad boobu loolu moo moo am solo. bu jarul nekk di polémique ci yenn borom xam-xam. waa maa ngi ciy def lu baax. waaw. ndeela bu sëñ Babacar Ngom. est-ce que. wóor na yàlla mu ngi dimbale ay miskin. yàlla ko yàlla yokk. na ko yàlla yokk man dama ko fekke dama ko dund parce que wama shahidna illa bi dafa am loo xam ne ñu baal ñu fi tele yi ñuy nekk dañu war di ko siiwal parce que ñeneen oustaz sa compte am 4 milliards ngay génne muddum ko di génne téeméer téeméer par bopp wala ñaar téeméer santoo yàlla vraiment yow moom yow bi nga koy génne sax ndax yow te am na koo xam ne bu koy génne day wër parce que téeméer amul ci kontam amul ci pochetam téeméer amul ci pochetu soxnaam mu koy wër pour di ko jox miskin dafa am sama benn doom Mouhamed bi mu gënee nekk xale dafa dañoo ro ànd nii am koy yalwaan léegi nag ma ubbi sama pochette di wër di wër billet yi ma gis 10 000 pouces gis 5 000 pouces gis 1000 francs ndekete xale baa ngi may yërndu rek ba ma am euh, euh, pièce daal laa génne jox ko kii mu ne ma maa maa lu tax joxoo ko kayit yi ma ne ko ah ma rus nag mu ne ma maa àjjana de xanaa weccet rek fay dugg xam naa safara moom te boobu xale bu ndaw la gis nga loolu ba léegi su may saraxee su ma gi defee ni génne damay rus jo jëkk joxe billet bi ma bi nga xam ne moom laa njëkk gis. donc loolu loolu moo tax. waaye ki am 4 milliards. ñu ngi ñuy dégg am na ñoo xam ne fii Sénégal man ngaa xaw ma sax loolu ndax man yàggumaa xam milliards ñaata la ndax man dama defoon ne million mooy. Euh, mille euh, <laughs> cent cent cinq mille man gis man yàlla xam ne oustaz xaw ma xaalis man gis nga fi mu nekk bu passé ñaar téeméer <laughs> dara laa leen xawatul mën nga la ca moo tax ñoom ay chaque ñoom ajageeg ñoom ay ñoom xale yooyu ma dëkkaloon dañ lay nax rek dañ may nax rek ci xaalis bi xam naa ne Mariama itam ak Mohamed ak Tidiane noonu lañ may mais gis nga oustaz mm. ñooñu oustaz même bu dee ne jox nañ leen xadd ne leen azaka bi nii lay toll war nañu sante seen boroom wa man tatawaa xayran. wa man tatawaa xayran oustaz nagu jàkka yi da ngay seet jàkka yi dañuy rey ay nag oustaz ñu woote ne ñëw leen jël saam yi oustaz saam yi yenn saa yi nit ñi ñëw dinañ bëri ba saam yi sax du mat un kilo. bilaay maa la ko wax. te am na ñoo xam ne su ñu lekkee ndawal dañoo dem dëj wala ñu dem xew. oustaz am na ñoo xam ne suñu lekkee ndawal tabaski ba tëbëski lañ koy lekk wala korité ba korité moo tax réew mi. war nañu defaat benn équilibre benn état généraux ci jàppale ñi nga xam ne néew ji doole lañu. te loolu lu am solo la Seyda. oustaz te am na ci dëkk am na am na nag. waxuma feneen de gii laa am na fi ñoo xam ne. am na ñu baax nag. waaw waaw am na am na ñu baax. Euh, benn dëkk ngi ca booru Louga. waaw ñu koy wax Njëmb Fall. Njëmb Fall waaw. alaaji yaat ma deer man xam naa ñoom Bintu Zaraat ñoom jëmb ak ñoom. ndey Sénégal maanaam pour wax la ni la am na ñu nga xamante ni bi yàlla. Mhm. bàyyi na leen ci gox yi. waaw te xam nañ li tax yàlla bàyyi leen fa. may wax foofu alaaji yaat ma deer waaw man mosuma teg sama tànk ci dëkk ba. waaw. mais wax naa ko ma ne ko jëf ju baax. Serigne Cheikh Tidiane si ne amul làmmiñ. mais saa yu soptee nit ñi dégg ko. dëkk la waa dëkk ba ñoo ma woo ci yu baax yam fay def. yàlla na ko yàlla may fan bu gudd. ma woo ko moom ci boppam ma woo ko mu confirmer loolu ne maa ngi koy def mais yàlla rek laa bëgg mu xam ko. ma ne ko ma ne ko nag nii nit ñi xam nañ ko yal na la yàlla fay yiw yu mel noonu Seyda comme ki nga junj léegi ci sédiment yu mel noonu loolu la nit ñi soxlo gis nga yàlla réew mu mu dagg réew mu mu dagg def na fa loo xamante ne bi nit ñi mën nañ koo dunde li mu bañ mooy kenn dajale ko téye ko kay laa yokkuwu na duulata mbay nal armiya mu bañ a nekk seen diggante rek ñu koy taralante ku nekk defal pañe pañe euh, kii boo xam ne ñaari nit a koy gàddu yóbbul ko diw yóbbul ko diw yóbbul ko diw pañe yi nag baax na trop oustaz waaye nag pañe yooyu tamit ni mu baaxee bu mu nekk rek diggante man ak yow xam nga li tax yéen di tere ñam eh, ne ne ne ne cérémonie yi tax yéen di ko di tere waaw tere cérémonie mhm. mu ne parce que cérémonie borom barke rek fay nekk néew ji doole du ko fekke waaw parce que am na ñoo xam ne bu ñu defee seen ndogu yi wala ñu def seen euh, euh, diine yi ku amul carte doo dugg moo tax muy tere taamul walima mhm. mu ne parce que dañ fay ñamu kéet mariage ah, parce que mariage carte exigée la ah, ci an ah, yaay lañ fay woo waaw du ñu woo miskin yi même nag soo bokkee ñoom waaw da ngay nekk ak nit ngeen bokk ndey ak baay muy maye doomam doo ko yëg parce que tolloowu leen tolloowu leen mbagg tolloowu leen rang wala nga nekk cousinam mu ne la pourtant diw nga ne ko ante loolu dafa bëgg a bëri Sénégal suñu ñaari yaay yee bokk ndey ak baay wala suñu ñaari maam yee bokk ndey ak baay nga gis muy séq ak diw ak diw ci ay taranga mm-hmm. bàyyi ay mbokkam yooyu te yàlla lu mu waxoon wa atul maala ala hubbi zawil qurba wal kon nag nañu jiital ci mbokk yi oustaz est-ce xam nga ku nekk bu dimbali woon ay mbokkam ñàkk dootul am ci réew ndax mbokk ku nekk mbokk keneen fabda bi man taawul lañu waxoon waaw fabda bi man taawul taawul ak ma neex <laughs> nga commencé ci ki nga xam ne ah. dundam war na la ah. jeex kon nag mbokk yi mbokk téléspectateurs yi Euh, macha allahu taala oustaz Mor yàlla nga gudd fan. amiin ñu bokk ñu ñëpp. ñu bokk ko ak mboolem jullit lii ñuy wax nag boo gisee ñu koy wax dañu xam ne ñun dañu dañu jege société bi ndax ñun suñu kër yi kenn du ko tëj amuñu gardien amuñu vigile amuñu kenn ku ñëw da ngay sonné dugg sonnerie bi sax li tax ñu koy def pour sécurité tax mais sax daanaka mënoon naa ñàkk ndax sonnerie boo xam ne buntu kër ga du tëju daanaka jaru ko te heure boo ñëwee mun ngaa dugg ba fekk ñu suñu biir chambre à ah, kenn du la téye mm-hmm. kon ñun ak ñii di taxaw fii ci biti mm-hmm. boo génnee lu mat vingt personnes quinze personnes li may wax ñii nekk fii xam nañ ko mm-hmm. ku nekk dalay wax yitteem te mënoo ci dara loolu nag mu bokk ci li nga xam ne émission bii dafa nekk wareefu Ramadan wareef nag mooy li nga xam ne moom la. mooy nga rappeler nit ki li mu war a def li mu soxla. moo tax ñuy dem ci thème yooyu parce que nag lu fi nit jàng rek jàng nañ ko fi. lu fi nit war a mën a wax wax nañ ko su dul nag ne dinañ moytu dugg ci ay xuraafaat. dugg ci ay xissa yoo xam ne wérul mhm. dañ koy moytu fii mhm. ci wareefu ramadan mhm. dinañ fi moytu itam loo xam ne bu ko boroom xam-xam xam nga kuy toog Serigne Mbaye Abdou di la déglu di apprécier nga toog Serigne Sidi Makhtar ba muy dund Serigne Cheikh Touré seede la ci ku mel ni suñu papa Abdoul Aziz Al Amin ba muy ba mu nekkee àdduna benn bés mus naa dem ne ko papa ah mu ne ma ah, maa ngi lay ndokkeel de kontaan nañ trop alhamdulilah ma ah, baa ngi jaar yoon mu ne ma bu jaarul woon yoon ma wóola xëcc sa nopp. est-ce que alhamdulilah rabbil alamin kon ak ñeneen tant d'autres démb bi ma bi bi ma bi ma demee ci kii yu bi daanaka lu mat ay asatis yu mag yoo xam ne xalaatuma woon ne sax ñu ngi seetaan émission bi ñu ngi ñuy moo tax dama ne ren mooy suñu meer wareefu Ramadan pour man li ma jàpp. Seyda xam nga lu tax. waaw. Euh, arab yi dañu wax ne. Mhm. wa min shiddati dhuhuri akbar. xamuloo xef mm-hmm. xef mm-hmm. li mu jege bët moo tax bët mënu ko qualifier daa kenn du gis xefam Allahu akbar xaaral ma def nii ba xam ne gisuma dara <laughs> daf ko jege moo tax mënu ko qualifier moo tax yonent bi lu mu waxoon Muaz ibn Jabal ba mu koy yónni xaw ma fàtt na ba mu koy yónni daf ko def di ko nommé ambassadeur daf ko ne boo demee mm. waxal ak ñoom ala qadri wa qawli ala qadri wa qawli nit ki des niveau bi da ngay xool li nga xam ne parce que ñun avant ñu fi ñëw semaine bi lu mat ay ku nekk tey sa WhatsApp lu mat ay mille quatre cent mille cinq cent mhm. message moo nekk fii suñu portable mhm. ami liñ ci am Facebook mun nañu wax ne dafa dem ba suñu téléphone dafa sature mhm. dañuy wàññi rek ñooñu nag ñoo lay wax da ngay gis kii ne la oustaz ndax du ngeen waxtaan ci nàngam soo demee nga ni oustaz moor nàngam yooyu nag la ñuy jël def ko istintaaj wala istinbaat mm-hmm. boole ko nag xool li nga xam ne dëppoo na liñ ciy laaj. li ci alquran indi. jëlal ki ci ligne bi jëlal ki ci ligne bi ñu ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko nit ñi. mbokk mi bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah. rëcc na na. waaw léegi dix mille ndeysaan waa ñuy bu baax ci. léegi dama bëggoon tarki tuuti ci ci azaka bi. Mm-hmm. wax nañu ñoom ñaar ñooy génneel seen bopp comme ñoom ñaar ñoo nekk. Mm-hmm. jëkkër ji mooy génneel jabar ji. Mm-hmm. su amul jabar ji mën na koo génneel. waaye waru ko su jëkkër ji amul. jabar ji mën na ko génneel mais warul jabar ji. jëkkër ji est bu ko ko génneel ba pare ñoom am nañ droit lekkaat ko. waaw bu fekkee dañ ko xiyaas ci xat sami la xawla lati tu jaadi lu ko fii zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma <laughs> mu ne dañ ko xiyaas ca foofa daal mu ne yonent bi dama lay laaj. ban kër maa xam moo tax noonu rek sallallahu alayhi wa sallam moo neex moo neex non ma ma xam nga lan la. dafa dafa dégg jamono sallallahu alayhi wa sallam. waaw yow yàlla waaw yow ku yàlla. dafa dégg yow tamit nag bokk la ku iblis dee. waaw dafa dégg jamono léegi azak muri kor baa ngi noonu. waaw nit ki mën na ko génnee xaalis. mën na ko génnee li ëpp ci li muy dundee. lépp ci li muy dundee mën na ko ci génnee mën na ko génnee bu ñu nee des na deux jours. masalan mercredi mën nga génnee wala yi nga génnee ko vendredi matin bu fekkee dañoo julli balaa ngay dem ci julleekaay bi nga génnee ko mais li ci gënoon la ci gënoon nga xam moom la boroom xam-xam ya taamu woon mooy boo xëyee ci suba bi nga génnee ko mais léegi comme suñu dëkk yi nii mu demee jouro julli magasin yi dañuy tëj xale yi eh, dañuy bo ñiy jaay dal duñu tëj ñii jaay gànnaar duñu tëj ñiy jaay ndugg par exemple du du ndugg yenn yi du am nga jiital ko deux jours avant wala benn jour avant teel koo yónnee mu yegg ca kan koy jox moom suy dem marché mu dem marché suy dem boutique mu dem boutique ba buy wallu ji mu wallu ji buy soqi mu soqi buy def leneen mu dem def leneen donc loolu euh, bu leen kenn wax ci ni mënu leen koo génnee xaalis man maa leen wax ne man nañ koo génnee xaalis parce que borom xam-xam yi du ñu jàpp ñi sànni njële te dañoo jàng ne wuuteeg borom xam-xam yi suñu avantage la comme am na ñu nekk ci avantage boobu mën ngeen leen jox seen leen muuri koor yi ngeen génnee ko xaalis ñoom ñu dem jëli ko wax naa la léegi yonent bi tuddul woon ceeb te ñu ngi natt ceeb oustaz am na itam benn boo xam ne ngeen baal ma sax aima yi laa koy wax xam naa ne tuuti naa sax di leen jox nasiha parce que xam naa ne ñoom ñooy suñu kilifa wala antam ni anti minal muminat minal waaw waaye oustaz dama xam ne nga xaar ba bésu korite ngay def sa xutba ci zakatul fitre <laughs> mais loolu yaakaar naa nag euh, ah, damaa jàpp ne bu fekkente ni bi xam nga dafa am ñoo xamante ni bi bu njëkkoon. Eh, eh, dañoo dañoo li woon mais léegi xale yu ndaw yi nekk fii hmm. oustaz Assane mii eh, genre oustaz Assane yi ñoo nekk Ilimane de ak ñoom oustaz As Gueye ñoom oustaz Ibrahima Gueye ñoom oustaz euh, Malick Fall oustaz Tahir xale yu ndaw yooyu ñoo fa nekk yoo xamante ni bii dañuy dem xam nga ñun suñu ay professeur français ñoo fa nekk ay imam ñoom Mountaga hmm. ñoom Moussa Ndiaye dañoo xam li xew ci àdduna bi loolu bu ñëwee la ñu ah. kii day ah. jàngale français mat lay jàngale ah. tey ñoom ñooy def qiyaam ci biir jàkk ji foofu ñooñu ñooy ñëw def xutba yi bu ñu ñëwee nag léegi xutba ay kii yooyu xutba ay muri koor yi lii ak lii ak lii non ah. loolu bàyyi nañ ko de ah. koo gis mu koy defal boo ko laaj ñaata ak gàmm naa la téeméer ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk man yaay waaw <laughs> laa abalaka yes ami donc loolu mooy loolu mooy wane ni eh, nit ñi gën nañoo dégg diine gën nañoo xam li xew ci àdduna bi macha allah macha allah gën nañoo xam ne xew ci àdduna ay xale yu ndaw la ñuy doon yoo xamante ne bii bu ñu xutba ba pare dañuy wàcc takk seen dàll dem nekk ca. sol seen jiit waaw dem dem def sport wala ñu dem defi leneen xale yu ndaw yooyu ñoo yore diini ji léegi ngang ko di ko di ko doxal alhamdulilah ñeneen ñi nag ñoo xam ne mag ñu fi jiite ñoo ñooy yi nga xamante ne bii. ba léegi ñu nga ca xutba ba Farouk doon defal mu ngoog su ko defee oustaz sant yàlla bu baax. léegi balaa nga koy sant yàlla yow. waaw fàttalil guddi gi. waaw guddi euh, laylatul qadar bi tey. kon tey képp ku ko mën. na nga dundal ci moyen d'une minute na nga dundal ni nga xam ne noonu la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee. bi ko suñu yaay Aïcha laajee yow sang bi nga ne tey bu dee tey la lan laay def mu ne ko ginnaaw nag boo jullee ba pare waxuñu julli woo naafila woo nga toog rek yare sa kurus naan allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni déedéet day fekk nga julli gee ba pare. Mm-hmm. bu ko defee boo julleegee ba pare nga naafila nawaafil li nga xam ne moom nga mën boo mënee jàng alquran boo mënee def salaatu ala nabi nga boole ci nag li ci ëpp li gën mooy yàlla allahuma yow sama borom innaka afuun yow ku bëgg a baale nga te ku tedd nga baal ma mun nga ko wax ci pulaar séeréer bi daal moom a wóorul ndax mun nañ ko cee wax aan <laughs> haal pulaar o kadi aan aɗa waawi wiide allah joomiraaɗo aan de ka jaafitoyɗo aɗa yiɗi yaafnaade ɗum noon kadi ne weeɓi e haalpulaar en ɓe ngannden hannde woni leylatul qadre o tinnoɗo en heen daroɗo en heen mbasen lelade tan e ko woni ko ɗoygol fadanma janngo ɗum ɗon yoni heen hande yon findin sukaɓeɓe worɓe mawɓe fofof hande noon minen min mbaɗata ɗum ko galle mamoudou harouna diaji to to malik kase mais min ummoto min adorto ko galle eh, mamoudou haruna ndiaji omo nodda hen dendagal julɓe ɓawɗo taw tawtarede ñu ngi ñaan yëpp tey kaaw xam nga moom it dafa commencé di xëccoog man nit ñi mhm. xam naa ci moo tax may mun a mii naan dafa bëgg a ñëw si kaaw nee moom it laylatu bi daal munul weer wi yëpp koor yëpp di ko koy jox ñeneen bàyyi ko yow may a a safit bi a tiital na ma man man ñun ñun kaaw fi mu nekk dafa fragile bëgguñu xale bu ko bu ko fatigué ko yërëm duma ko yërëm keneen xaju ci su ko defee rek ñuy ñaan ñëpp tey nañu gudd dundal guddi gi euh, macha allah taala ku mën a am teraanga itam yóbbu ko si jàkka yi mm-hmm. ndax xale yi fa la ñuy fanaan nit ñi fa la ñuy fanaan ñu mën a yóbbu ay xëdd macha allah Sénégal sax ñu ngi ciy góorgóorlu. macha allah ñu ngi togg togg bernde yi di yóbbu si jàkka yi macha allah taala ñu ci ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy def ñi ko deful woon daaw te ñu mën ko ren meew baax na suukar miskit loo am te itamit soo amee itam loo mën a dimbalee imaam bi imaam yi li ñu war a sol ci jouru korite yi ku leen mën a solal comme ni ñuy solal star yi di solal ñi nga xam ne ay animateur lañu tailleur yi di solal ay animateur war na ñoo mën a solal imaam yi nag wax dëgg kii ne maa jël imaam bi kii ne maa jël imaam bi la koy ñawal mu sol ko ci suuru korité mu nekk sagam nekk sagu diine lislaam ba ku ñëw du xepp lislaam loolu tamit maa ngi koy ñaan ñawkat yi xam naa ne ku mel ni Thiané Diagne ku mel ni ñoom euh, Nadoura ku mel ni ñoom ñoom Yacine gàdduloo ku mel ni ñoom Fat Diagne sama couturière bu baax boobu ñoom sëfi Sy ñoom ay Niang macha allah taala ñu góor góorlu ci imaam yi solal leen comme ni ñuy solale star yi man daal tey loolu laa doon tëjee di ñaanal ñëpp jàmm di wax sama yaay guddal fan loo dund doyul yaay yeeg papa doom yi di leen wax ne ñun daal mënuñu leen a fay waaye bàyyi nañ leen leen ak borom mbaar mi di wax ne tey daal ki jaar ci cuub bi rek mooy rek macha allah sama doomu bopp yeeg sama xarit yi rek jàpp ci. yàlla na leen yàlla fay. allah Seyda bégg ci nañu. nu fàttali rek nii comme guddi gi guddi laylatul qadri la. lu ko waay mën ci góor góorgóorlu ci dundal ko mu mu mu dundal ko eh, ñu am habitude di dem jullee ji suñu gée ñu jullee ko ca jàkk ja nekk mbooloo jullee fa gée soo jullee gee ci mbooloo mi non seulement def nga liñ la sant mais dañ lay bindal tuyaabay ko julli genn wàllu guddi gi ci julli gi nga àndandoo ñu jëm julli ji gee rek soo fa julli jee fajar nag ñu sa fajar bis boo fa jullee fajar dañ lay bindal tuyaabay ko fanaanee naafila yépp donc kon loolu beneen njariñ la ñu boole ko ci incha allah ñaan yi naafila yi jàngu alquran yi zikkar yi loolu laa doon junj sànq ma ni malaaka yi la yàlla di tontoo loolu ne leen dem leen ci suuf ñu ngeen wax dañ fay yàq ñu nga nele ñooy ci umra ya ñu nga ca naafile ya ña nga ci njàng alxuraan ya ña nga ca togg ñam ya di joxe yooya nag moo tax ñu koy sentaane di ko fàttali ñu ñuy nekk ci seydaa wax na lu am njëriñ dimbale imaam yi jàppale leen mais aussi dimbale askan wi dëkk ci côté jàkka ji di fa naafi la koo xamante ne que yàlla may na la nga am njëgu nag nga jënd ko indi ko ca jàkka ja ñu dagg ko séddale ko néew ji doole yi nekk foofu nga def ko daaw Seyda même ko amul nag sax boo amee sa carton ginaar waaw nga yóbbu ko ñu daaw Seyda dafa am benn ni euh, daaw daaw jéeg daawaati jéeg ñetti at yi ren nag di gisaguma ko mhm. euh, euh, sama jar baatu bopp abi biyaay mhm. abi biyaay mhm. may toog rek mu woo ma téléphone oustaz ana waa jàkka yi ngi pare ma ne waaw mu ne maa ngi yónnee nag bi wallaahi tabaarakallaahu mu def di ko def yu rafet yooyu yooyu la soxla yal na yàlla fay ko yiw maa ngi koy doog a wax ni mais dana ko def yal ko yàlla fay yiw fay jullit yëpp yiw ñu ngi ko defee ñu ngi nuyu suñu soppe yëpp di ñi nga xam ñoo ñuy ziar ñu ngi leen di ziar ñoom tamit ñu nekk États-Unis ñu nekk ca euh, biti réew ñu nekk ci biir réew mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di leen boole jël nuyoo yëpp dajale ko jox ko soxna Xadi Si jox ko euh, madam Sall Aminta Racine jox ko Adja Matel jox ko suñu soppe yëpp Bintu Gueye nekk fële ca ngaay ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare di baalu ñëpp ak baal nañ ñëpp ak di leen jox daje di leen wax ne bu leen nu fàtte ci ñaan yi incha allah ñun tamit duñ leen fàtte wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah.